doon séq ak moom waxtaan mu nga yëkkati ay kàddu di ko jëmale ci ki nga xam ne moo di président Sall ak ki nga xam ne moo di Adji Sarr ak Mamour Diallo di wax ay kàddu di ko jëmale ci ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko di wax ne lépp loo xam ne Macky Sall doon na ko teg ci kaw usmaan sonkoo jamono ji nag ma ngay wëlbatiku di dal ci kawam ndax lépp loo xam ne ñu ngi ko doon def mu ngay feeñ benn par benn yàlla mi ngi leen di weer Macky Sall dafa dëgër bopp loolee du say wax wax ki nga xam ne moo di Ibrahima Guèye Ney Leer la di wax ne maanaam ginnaaw bi ko si mun taxawoo la woon di ko wax ne wax ji yi ngeen wax teg leen ko ci suuf mu di wàllum viol moom nag dana yëguma ko waaye nag lépp loo xam ne war naa ko ci def dinaa ko ci def moom mii nag di Ibrahima Guèye Ney Leer di wax ne ki nga xam ne moo di Macky Sall dafa woor suñ Muntaxa Mbàkke avant sax muy wor sénégalais yëpp waaye daal na xam ne lii instant bi mënu ci génn te bu ci bëggee génn aji Sarr mën naa wax ne Macky Sall tëdd na ak moom kon nag maanaam jamono ji daal lenn rek lañ man maanaam nag fexe daal ba coow li fay waaye nag jim cee génne bàyyi ci Adji Sarr ca ndax kat Adji Sarr maanaam dañ ko téye yàqal ko ak ndawam moom nag lii mu wax ni daal Ibrahima Gueye ne leer nee na daa mer wala sax maanaam daa gis ne kat dañ koo yàqal fowee ko moo tax moom tamit mu bëgg a fay ci ñoom tax mu leen di waxal waaye daal na xam ne moom daal instant bi daal lenn la man muy fexe daal coow li jeex waaye daal génn ci bàyyi ji aji saar daal mënuñu ko ñoom parce que jamono ji coow li daal kenn mënu cee génn bàyyi sa morom moom nag sikkit na ay kàddu jëmee ko ci ki nga xam ne moo di Bougane ngay Dany di wax ne Bougane da koo bett lool ndax kat Bougane ba ñu jàppee ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ba ñu ko bàyyee moo ñëwoon tal otoom ñëw fa di cible di yuuxu ñëpp jàpp ne Bougane daal maanaam lii ñu def Ousmane Sonko daf koo metti ba tax bañ ko bàyyee mu ñëw di cible fekk na nag maa nga ci biir complot ba moom nag ma ngay wax ne ki nga xam ne moo di Bougane daal def ko bett lool ndax jàpputoon ne Bougane kat bokk na ci lii nga xam ne ñu ngi ko doon tuumaal Ousmane Sonko sab jàngat bu gàtt ci mbir mi mu di maanaam loo xam ne ay caaxaan la quatorze personnes dee ci ay nit ñàkk ci seen liggéey ay nit maanaam seen loxo dagg ca ay nit ñi tëj leen ca mu nekk loo xam ne ay caaxaan képp la ci Sénégal wax fa dëgg yàlla loolee loolee wallahi bu ñu deewee ba dem seen kanam borom danañ xam ne alal jarul lii nguur jarul lii parce que maanaam ñoo xam ne yaa leen jiite di leen nax di leen fawee maanaam dem sax bay def loo xam ne maanaam kenn xamul lu mu doon ndaxte kat maanaam tuumaal nit ki maanaam tamit boole ci di ko sonal ba dem ba ay nit ci faatu ndax lan ngir kii rek bëgguñu daal mu toog seen ginnaaw bëgguñu daal mu nekk koo xam ne moo jiite Sénégal ñoom daal dañoo bëgg rek di jiite ba faw te ngóor guy wéy gu dul yàlla amul ngóor goo xam ne day wéy di wéy ba abadan amul fenn nguur moom maanaam dana jeex ak nguur gu mën a doon ba des nguurug yàlla Firawna jamono ja muy dund nekkoon ci ak nguuram di buum di bummi di jàpp di rey di jàpp di tëj ku ko neex mu rey ku ko neex mu tëj ku ne ko woon yow mii sa nguur gi dana jeex bis dana ñëw mu jeex du ko gëm waaye tey anamu ana fan la mujj moom na waaye jamono jii daal nit yi xaalis ak alal maanaam daf leen a jaral lu nekk maanaam ak nguur bëgg daraja loolee daf leen jaral lu nekk nag topp ay nit di leen euh, bundu di leen sonal ba xëy sa nguur jeex xaw ma nag yow lan ngay wax sa boroom xaw ma nag yow boo demee ci sa kanam boroom lan nga koy wax te tamit ñëpp lay jéppi kenn du la yéene lu baax parce que nag ba ngay nekk maanaam ak njiit yéene woo kenn lu baax kon tamit yow boo wàccee am na fay toll kenn du la yéene lu baax fexe nag ba boo nekkee ak njiit xëy bàyyi njiit la nga toog ñépp di la yéene lu baax ñépp naan kat moom kat nangam ba fi nekkee nangam ak nangam loole maanaam ku nekk war na koo jiima def boo jiitee dara wala nga nekk koo xam ne dañu laa jiital. te bañ rek topp àddina bi nga xam ne day jeex saa bu nekk rek nit yay wàññeeku benn par benn ku nekk rek war naa xam ne daal bis day ñëw ñu dugal ko ci biir suuf maanaam nag wan ka ginnaaw. moo xam alal yu mu amoon moo xam kër yu mu amoon moo xam lu mu mën a am bis bu deewee rek loolee lépp du ko topp lan moo ko topp jëf ju baax jëmu jëfoon jëf ju baax ja nga xam ne maanaam kat doon na ko def ci kaw suuf bu fekkee nag safaan la nag aa ah, dana métti ci moom lool te kat ku nekk war ngaa góorgóorlu comme ni ngay liggéeyee ci sa àdduna fexee am kër fexe am fexe am ay njaboot war ngaa fexe tamit ba liggéey loo xam ne ci sa alaxira boo demee kat doo sonn waaye nekk ci àdduna jàpp ne kat doo fi jóge ba lu la neex def ëpp doole rek di jaay doole di nga xam ne yàlla kat moo ëpp doole ñëpp te jaayul kenn doole yàlla mi nga xam ne nag moo la jox doole nga koy teg ci kaw nit ñi bés day ñëw rek yàlla nangu doole joojee jox ko keneen yow nga bokk ci ñi nga xam ne. yow lañ war a jaay doole te kenn doo jaay doole voilà kon mbokk yi jox leen dig daje ci beneen jàngat jàngeen jëf ci ànd beeg 5M TV Sénégal 5M TV seen YouTube bu am solo abonné wul ci 5M TV Sénégal ndax ngay am ay vidéo yu am solo